ndeysaan mu ngi noonu mi ngi fi nga xamante ni moo di kër Bougane Gueye Dany fii si cité Keur Gorgui gis ko noonu mbokk yee ñu ñëw xarit yee ñëw àndandoo yee ñu ñëw ndeysaan ndey muy mu doon solo ko noonu nga xamante ni moo di cité Keur Gorgui mbokk yee ñu noonu di ñëw ndeysaan metti na xanaa ñuy waxaat mi nga xamante ni moo di inna lillahi wa inna ilayhi raji'un nakar ak kiis bi nga xamante ni dal na famille Sekeen di leen ko jaale waaye di ko jaale seen yaay mi nga xamante ni moo di jaaga di ko jaale waa Sénégal yëpp di ko jaale waa adduna yëpp nit baax la woon nit ku baax la woon wax dëgg yàlla gis ngeen seede yi nga xamante ni la gars seede fii sànq ba léegi ndeysaan oh oh soxna seen ngi jooy ndeysaan ndeysaan ndeysaan metti na metti na ndeysaan metti na ndeysaan dafa metti ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndege yi noonu gaa yi ndeysaan gis ngeen ko sëñ bi naan mbokk yi nga xam ne mooy sa sœur bi décédé mu ngi dem

ma leen écart président bu leen ko mu nóo ma leen ko mu nooy laaj

On y avance, hein <laughs> Merci, gars. Ah. Thank you.

bàyyi leen xel seen poos yi nag. waaw. parrainage dañ ma laa wax man. Thank you. hayvan ürkütücüydü. Hayvan izin Hayvan bu an. Bana hayvan bu an. Hey, King. Come on, come on. député kon dañuy def ndànk rek duusal leen ñu xéwlu ba noppi bu ñu noppee ba noppi jigéen ñi ñoom fii la ñuy toog dem Lamine nee na xéwlu dañuy xool rek nan lañ koy organiser tey sax xam ne moom xéwlu ku ko def dañ koy tiim rek waaw loolu moom loolu lu ñu waxoon ne naa ko wax na rek mais li ci am solo mooy dañ ko gunge Serigne Bassirou Mbacke Xaadim Awa Ba mooy agsi suñu Serigne nu may ko mu agsi dañu préparé ko Yàlla Apa? Eh, kata Opie.

好吧。